appel boobu noonu ngay def tey euh, coach làmb li muy doxee làmb def nga si pratiquement plus de vingt ans nga nekk ci làmb waaye làmb mu mel dafa am beneen tournure tournure boo xamante ni tey xam naa ne gënalu la génnoo làmb waaye gis nañ ne da nga si commencé retiré wu ndànk-ndànk lan moo la gën a métti si làmb jamono jii nii. waaw c'est-à-dire retiré wu ma sax euh, hmm. dafa di lépp loo gis day màgg. damaa xam xool équipe bi ma yor ni mu toll. tey ji boo demee ba sa poulain yi nga njëkk a formé dem ba am niveau entraîneur yoo nekk ay coach mhm. dafay laaj ngay séddoog ñoom mhm. léeg-léeg nga noppalu bàyyi leen ñu mhm. nga assister leen taxaw leen mën naa wax ne ñoom laay coacher ñoom ñu coacher poulain yi loolu na bu amee. Mhm. seen présence mooy ëpp ko sama présence. Mhm. loolu bokk na ci. loolu bokk na ci waaw. Mhm. tey en tant que coach su tey sa carrière tey lan moo la si gën a neex loolu sama bokk si fàttalikoo tey dangay am sentiment de fierté tey si sa bopp si loo dund tey ci wàllum coaching bi nga xamante ni tey def nga ko tey ci wàllu làmp bari na mais li ma ciy jàpp d'abord mooy euh, d'ailleurs écrit bi ma yor problème bu mu mës a am. yàlla dafay def famille la ñuy doon. rawat na ñii ma nekkal tey. beneen bi ci des résultats yi nga xam ne ni yàlla dimbali ma géné lu ma trois générations formé naa leen. Mm-hmm. ba yàlla def ma am roi des arènes aussi. Mm-hmm. loolu yëpp sant yàlla la. Mm-hmm. satisfaction bu rëy la ci man. waaw parce que àdduna moom. kenn xamul looy am ëllëg da nekk ci li nga nekk di jéem di góorgóor la ba yàlla dikk ak dogalam. waaw sant yàlla bu wër daal. sant yàlla bu wër parce que aussi ngeen créé écurie même pas par rapport ak écurie fii màgg ay écurie Fass

waaw mais li ma la ci mën a wax rek mooy euh, sant yàlla parce que liggéey la rek. Mm-hmm. làmb moom li ngay gëmloo say poulain. Mm-hmm. toujours nay nekk ci yow mi nga xam ne yaa leen jiite. mooy que ni fii dañ fi nekk pour liggéey. Mm-hmm. góorgóorlu bu waxtu wuti jotee ñu ànd dem wuti. ki nga xam ne moo war a bëri ñu taxaw ko encadré ko jàppale ko. dëgg énergie famille la la ñuy dundee. moo tax du ñu du ñu wéet mukk. toujours ñi gëm équipe bi ñu ngi fa di liggéey. ñu ànd di liggéey noonu bañ ko créé ba loolu moo mës a am boo ñëwee da xam ne ñii famille la ànd di liggéey. Mhm. waaw mais Rock Énergie ñu gis ne dernier moment dafa mel ni Rock Énergie ne plus ce qu'il était gisatuñ fa Modou Lo gisatuñ fa mbër yu bëri ñi dem nañ di entraîner jàmbaar tey boo boo demee écrit ba tey quelque mbër nga fay fekk ñuy contact coach yi sax xam naa ñu fee ñëw léegi ci écrit ba bëreetul loolu nu ngeen ko dundee. par rapport non non non coach yi ñu ngi fa. Mhm. ñi nga xam ne ba ñuy def ensemble ñoo fay coach yi nga xam ne bu ñu demee ci terrain bi. Mhm. ñoom ñi ngi coach normal nga xam ne boo leen xoolee xam ne ñi mën nañu mhm. coach bu ñu wuyoo moo nekk ci ñoom mhm. ñi ngi fa muy Laxaat Diop Conke Sil ak Basiru Dia ne maa leen mhm. ñoo ñoo mës a nekk coach yi ñu ci des duñ ay coach ñu ci des dañuy gunge booy waaw bon mën nañu am yeneen poste yu ñu yor ñu bàyyi ko fa dem feneen mais bu dee ci wàllu coach moom waaw ñun ñii ñooy coach yi naka jekkee ñoom ñoo fa mës a nekk coach waaw bu dee wàllu mbër yi aussi bon li ma li ci am mooy des fois mbër yi dañu woote dañu woote cent pour cent non attends dañu woote cent pour cent mhm. ci biir cent pour cent bi aussi bu fekkee am na mbër buy préparé combat ci beneen écurie mhm. dañ fay dem jàppale ko loolu man foofu rek laay xoole quoi mhm. en général boo demee ci écurie ne jàmbaar wala fekk fa yeneen mbër ak énergie en général dañ fay dem pour jàppale yeneen yi nga xam ne ni ñoom ñoo fa nekk bon man foofu laay jàppee toujours quoi mais nag Rock Énergie moom. man boog musuma nekk entraîneur buy wëri mbër wala muy buy woo mbër naan ko entraîné ku mës a ñëw écurie Rock Énergie yaa fa ñëwal sa musuma yób ji mbër kenn woo mbër. da hmm. ko kaay entraîneur bopp. ku fa ñëw yaa hmm. a ñëw Rock Énergie a sa bopp kenn indiwu la fa. Hmm. ne boo fa demoon ba fekk fa cinq mbër sax. jàppal ne ñoo ñoo des Rock Énergie di fa entraîné. ñoo ñoo solo ma ñëw ci borom daaru borom daaru loolu dugal ci mbirum làmb ñaan ci mbirum làmb tey ay ma ñu fi nekk yoo xamante ni euh, si wàllu diaspora bi la ñuy nekk di liggéeyal ñii di seet ñi nga xamante ni day ñooy defar ngeen choisir làmb ne si làmb ngeen di liggéey di waajal mbër di préparer mbër ak làmb ni mu bëree coow bëri coono te xam naa ne reconnaissance bi amaana xaalis bi sax tollul noonu coono bi dafa mel ni moo ëpp. waaw non làmb moom nattu la rek. Mhm. nattu la ak coono. Mhm. maanaam nit ñi sax dinañ la si gis. ak coowu làmb. jàpp ne yaa ngi am àdduna ak li ci biir. Hmm. fekk sa bëgg-bëgg moo la fi bàyyi. Hmm. parce que sa liggéey yu bari sax dala koy yàqal. Hmm. làmb bari na détail. bari na coow bari na wax sew làmb tamit. wàllu ñaan bi. ku nekk léegi da see dugg. moo tax léegi sëriñ sax amatul valeur. maanaam détail yi bari na. concurrence bi te jaru ko quoi. nit li nga man jarul nga ci def concurrence. toogal rek. jarul concurrence jarul publicité. wallaay jaru ko. résultat daal la gars yi def bëgg. Euh, ñu ngi seen bët xëppi seen bët di xool. Mhm. kon jarul ay concurrence jarul ku naan man la wala man la wala nii non. ñi naan ne seriñ amul ci làmb ñi naan galaj amul. Mhm. ñi leen di dénigré naan ne li ngeen di def lépp lu si ëpp yëpp folklore la waaye loolu daanul mbër. waaw non wax na dëgg ndax léegi da see bari. Mhm. xam nga tey munoo ne euh, lii amut. boo ne lii amul rek dangay wax ne tamit ne lii am na. wax na dégg ndax léegi ñi jug si ñëw si làmb di si ñaan dafa bari. Hmm. te bari na mbër yoo xam ne liñ leen di gàll wala liñ tegtal yiñ leen di jox. Hmm. wallaahi wérut. Hmm. amul benn sens quoi. moo tax ñu naan ñaan amatul si làmb waaye ñaan am na. waaw boo coach yi taxaw nii jàkkaarloo ñun. xam ah. nañ ne am na xam nañ am na. <laughs> waaw. Uh-huh. <laughs> Euh, coach Lamine Golo ñu gis ne tey da ngay yor sa poulain. ngeen waaj làmb 3 mois 4 mois. din nga ànd ak moom contact nga ànd ak moom des fois sa salle pour la ko jot bu mais nga ànd ak moom ngeen dem ba jour làmb nga bëriloo ko ay consigne ne ko defal ma lii defal ma lii defal ma nga gis peut boo ko nee bul sëriñ bi ne ko arrièreal ba génn saako yi xam nga dañ lay daan affaire yooyu noonu nga ne ko bëril si digg géew sëriñ bi ne ko noo jël bi si wetu saako yi la xam nga nga ne ko kii normalement da ko war a mboot sëriñ bi ne ko non maanaam yow nga jël sa mbër <laughs> ne ko defal ma lii nga ñëw ba si biir géew bi li ko sëriñ bi wax loolu la def bàyyi li nga def bàyyi li def loolu dafa dund nga ko en tant que coach. <laughs> dund naa ko. <laughs> am mooy li ma wax rek. Mm-hmm. tey jii sëriñ kenn mënu koo génn si làmb. Mm-hmm. parce que dañ see am part de responsabilité. xëccal mm-hmm. xëccal micro bi tuuti si dañ see am wàll sëriñ si. waaw wax dëgg yàlla ndax ñaan moom. fi lañ ko fekk fi lañ ko waaye ndax cosaan la. mais léeg day toll foo xam ne nii sëriñ daa am foo xam ne fa la yem. fa a yem. sëriñ du la daanal. Mhm. daan yow yaa koy def. Mhm. amul benn sëriñ bu naan la. Mhm. maa lay daanal wala nii ngay daanee. ku la ko waxit day fekk la ngay daanee yow yaa koy def. yóbbu naa fi mbër ba tàyyi comme loolu nga wax noonu dal na ma. ñëw wax ko samay consigne ko defal ma lii waaw ñi yor gàllaaj ñëw ne ko bul fàtte paa bi lu mu la waxoon maa ngi dégg. <laughs> ma dégg mu naan ko du la gis ak su la dóoree nii ak. waaw nangam ak sàngam. ma noppi. Mhm. mais teewul man tegal naa la sama consigne ba pare. Mhm. soo ko defee baax na soo ko deful baax na. tegal naa mbër sama conseil mu bañ koo def déglu waxi sëriñ ak waxi encadrement ñoo xam ne ñooy estafam. waaw mais ba mu dëgëree déglu na li ma ko wax. déglu na li nga ko wax. ba mu demee ñam ñamaat. xam du jàll. Mhm. ba mu ñëwee si man ba ma ko waxee dafa def li ma wax te yàlla suturaal na ba may ko ndam. mais loolu lu ngeen koy dundee tey gars yi bëgg a dem ba nangu sëriñ léegi nangu nañ place su place su bi nangu place su yaay nangu place su papa mbëri léegi sëriñ lañ gëm gëmuñu keneen. man moom. xam nga lu tax awma ci problème. Mhm. si télé laay waxee te micro laay waxee. Mhm. te mën naa ne samay poulain ñu may dégg. Mhm. amul kenn yàlla nag mooy dogal. mais sama làmmiñ bi ak sama yéene sunu borom am na lu mu ci def. ñoom ñëpp amul kenn ku ma si mës a tegal stratégie nga def ko ñàkk. nga def ko ñàkk. yàlla moom lay suturaat ko yàlla moom mooy suturaat si loolu mhm. tegal naa leen stratégie ba tàyyi nga dem def def bëree leneen loo xam ne nii mhm. ba sant ma la ko nga daanu mhm. ma toogaat ne la lan laa la waxoon ngaa ma non damaa juum ak damaa def nii fekk bay wéy na mbuus mais li ma bëgg mooy ñu xam ko ñun tey ji comme ni ko grand Pambay di waxee rek ñun yàlla def na ni tey jii ñun ay entraîneur lañ te au maa ngi au nuyu au passage annexe di nuyu suñu président Aliou Ba Hmm. di nuyu ña fa nekk ñëpp suma limee damay juum. Hmm. ndax grand bi ngay gis vice président la man vice président la. macha macha allah kon tey jii am na loo xam ne ni ñun. Hmm. tëbuñu tëb rek tey jii lu mu mënti doon. sport bi ñu nekk xëy na am na loo xam ne ni dund nañ ko. am loo xam ne dañ ko jàng. di toog nag di waxtaanee te ñun ñëpp soxorantewuñu ah. ñun ñëpp soxorantewuñu ndax ñun ñii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. gisuñu si àdduna lu tax ñuy réeroo wala ñuy xiiroo wala ñuy ŋaayoo. mais làmb. la. nañ ñuy bàyyi xel ñun entraîneurs yi. mel ni am na ñu yàlla def mu mel ni entraîneurs yi tey joxuñ leen gëdd bi war. joxuñ leen respect bi war. Mhm. waaye comme bi war sax tey entraîneurs yi amuñu ko. Mhm. tey mbër dañ koy fay kase cent millions. Mhm. mu jël quatre vingt millions yi wala dugal si këram. vingt million yi wala trente millions yi mu ne lii day dem bitim réew. dagg si billet dem di fay hôtel. di fay foofu entraîneur boxe. wala di fa fay foofu entraîneur ku koy entraîner salle. ñëwaat jël fi quinze wala dix millions dem jox ko sëriñ. coach sam mooy nekk ak moom Sénégal fii bu dégg bëccëg di matinal ak moom di dem ak moom din bu dee ku mel ni Lamine Golo sax na pan te dërëm duñ leen na làmb ji ñu nekk ni eso ñun dañ ko bëgg mm-hmm. te mën naan tey jii. Mhm. ñun entraîneur yi. Mhm. ah xaw ma yan nag. waaw mais grand bi jàpp naan daa yor métier di mhm. liggéey. man damaa yor sama métier di liggéey. ñoom suñ defee li leen war suñ ko defee. ñu xam ne def nañ leen war. suñ ko defulit xam ne defuñu lu leen war. gis nga demal Europe. Mhm. fayal entraîneur boxe fayal entraîneur lu ne defal ko ay millions. Mhm. mais jàppal ni tey jii am na ñoo xam ne avant ngay am loolu ñoom la woon. ñoom la woon ñoo la ci poussé. Mhm. ñoo la si dooleel ba nga am loolu. te gis nga àq dafa xaw a sew na tey Lamine mën na bañ a laaj kenn. mën na bañ a wax kenn. mais am na yenn yoo xam ne borom mbaar mi gëmmul nelawul quoi. lii may wax nii nag waxuma ko pour mbër jox ma ndax man ku ma jox maa ngi tedd ku ma joxul maa ngi tedd. dëgg la maa ngi joxe dépense sama kër maa ngi ak samay soxna maa ngi ak sama njaboot. Mhm, sant yàlla kon amaana sant yàlla. Mhm. kon amaana am na yoo xam dafa gën a rafet. Mhm. tey mënuma concevoir tey ji ñu fay la ay centaine de millions. nga dem fay sëriñ deux millions wala un million te mënoo jox entreneur bi nga xam ne ni yàgg moom mu ngi yàq ay nelawam di ànd ak yow entraînement. di daj lu ne di daj yow lu nekk di ñëw ci biir làmb ja. yére bu mu sol su ñibbee këram doo ko xoo xàmmee mhm. ndax salte te kooku mënoo yëkkati tey jii sax benn cent mille franc ne ko am mhm. loolu man mënuma ko concevoir mbër bu mel ni Balla Gaye jóge fii ñu ne dem nañu ma daaneel tey ji damay wax mhm. sama booy dama leen koy wax dama naan leen fay leen sëriñ dem leen nu nekk mais seen dernière ñaan man maa ko yor sa xol dafa war a sedd su ñoom waaw sama xol su seddee rek lépp luñ bëgg rek da leen di yomb waxuma ko pour tëkku kenn waxuma ko pour lenn nag comme li may wax rek mais ñoom ak lu mënti def dañoo war di seddal xelu entraîneur yëpp du pour man kese ñëpp ñëpp tey mbër jóge fii tey ku mel ni Balla Gaye dem INSEP fay fa peut être vingt vingt cinq ba trente millions ñooñu dañ koy préparé mais tey bu ñëwee tey mbër bi mu war a bëreel yow xam nga tafaatin am na loo xam ci moom xam nga ni muy bëree xam nga ni muy songee xam nga ban pee lay jiital xam nga stratégie peut bu Balla Gaye war a mën a bëreek moom tey pour lii ko tey est ce que ni mu voyagé nii yéen a ngi déggante si régime bi ni muy entraîné ni muy waajalee ak fii nii est-ce que yu mel noonu tey mu ngi am sa diggante ak peut mbër bi nga xam ne moo di Balla ak yeneen mbër yi nga xam nga ñoom tey jii ku si mel ni Balla mhm. tey jii mën naa ne man maay mujjanteel entraîneur am mhm. ndax monsieur Anne Père Balla yàgg yàgg naa génn mhm. di préparé wu naa ne formé ma ko waaw tey jii moom si formation père Balla la. Mhm. nekkoon waaw. kon amaana am na yoo xam ne ni tey jii moom. Balla Gaye xam na li ko arrangé tey ndax Balla Gaye dootul xale si làmb doyen la. Mhm. moom xam na lim mën a am fii xam na lim mën a am fële. Mhm. xam na ba xam toog fii mën na koo jariñ. ba xam te dem moo ko gën a jariñ. moom tey jii Balla Gaye toll na foo xam ne ni jaratul kërse. ndax ku dem ba dégg roi des arènes kooku jaratul kërse. su fekkee tey jii moom bëgg ak li làmb laaj su ko dundee rek moom kese rek war na mën a entraîner. mais sportif war na mën a defal boppam. sportif mënut a ñàkk coach. tey muy baal mu bàyyi. ba ca mbër mu ndaw ma. Mhm. ndax tey jii su fekkee da ngay entraîner sa bopp rek heure boo sonnee bàyyi. mais su fekkee da yor entraîneur respecté ko. Mhm. du cadre respect nag tey jii li leen gën a sonal mooy dangay yor sa entraîneur di dawal 4 4 40 millions. Mhm. yor kër gu rafet. Mhm. yor ay millions sa compte yooyu yëpp. ma leen ko ñu leen koy ñaanal mu gën waaw bu ñun ñuy jël ay cag-cag ak di dox. Mhm. kon tey amaana tey jii soo amul xel dëgg rek doo ko respecté. te fekk àdduna du noonu. xëy na yàlla moo bind te yemalewul. xëy na sunu borom moo ne woon di nga am loo xam ne tey José Mourinho tey jii ma jox la benn anecdote. lan moo tax mu ne moom joueuram du ko ëppale kase. tey jii jàpp nañ su ko zóoram ëppalee kase du ko respecté. ko respecté. Mhm. te loolu dafa te di dëgg. Mhm. tey entraîneur am na statut booy taxawee rek sa say point duñ la respecté. dëgg la man kon ku si mel ni man tey mbër mu ci nekk soo amee sa avance. Mhm. soo ma joxee soo ma joxul saa ma fait ni chaud ni froid. mais damay xam sama mais damay respecté daal. waaw respect bi laa gën a soxla. mais tamit li nga xam ne moom la la yàlla di may. Hmm. damay xam ne yàlla may na la ko xam nga ñi ngi ko mën a bokkal yaa ngi koy bokk ak ñoom. Hmm. man su fekkee damay sonn rek. te hmm. sonn rek li may def dama koy def xol bu set wicc dama ciy continuer di ko def rek. xaaruma ci yow dara. sëñ Niass xam nga ne yéen sëriñ yi da ngeen gàddu ak entraîneur yi yéen sëñ yi xam ngeen loolu. ah yéen kat entraîneur yi dañuy waajal def lu ne daj lu ne nga ñëw ba jour làmb ji mel ni moom mbër bi moom yéen ko jur lu ngeen koy def loolu lay def lu ngeen ko bàyyiloo mu bàyyi. est-ce que sëriñ yi ak entraîneur yi bokkuñ jàngoro. Ah. <laughs> sëriñ yi amuñ làmb amuñ ci làmb ji xaalis de. Mm-hmm. xam nga làmb dafa nekk poom cosaan. Mm-hmm. magum cosaan daan ci ànd. Mm-hmm. léegi magum cosaan moom moom la gaa yi tuddee sëriñ. mais sëriñ. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg rus naa toog ci sa jaada di tàllal suñu borom. diw dóor diw mu daanu. parce que làmb du pomo xam ne nii tey pomu dagan la. xam nga li ma la yàlla nag moo ñu ko nattoo ñu koy def. comme yàlla moo ñu ko nattoo ñu koy def. Mhm. suñu polo poom cosaan la. Mhm. ñiy ñaan te yàlla tax nekkul dañuy ñaan pour kii ñaan nekkul dafay forcement li muy ñaan day am parce que kii ñaan ñaanul yaayam ñaanul baayam yàlla lay ñaan. waaw te ñaan ñaan la tudd ku am du ñaan. ku mhm. ñàkk mooy ñaan. ki jaaxle nag ba ñëw war nga ko teg ci war nga ko gindi. xam nga kiy bëre xale la mm-hmm. ñëwul ci sëriñ mm-hmm. di ñaanlu yow sëriñ bi yow mi ngeen jàppee sëriñ ne yow dañ lay wooye ne sëriñ la war nga gindi nit ki mm-hmm. ba du réer ak ay bokk man des fois damay def stratégie boobu ci làmb dama naan la sarax bi yaag ñi nga bokk ak deret mas naa ko def ci mbër yaag ñi nga bokk ak deret ki mu ànd ak ne ma ah moom magam ju jigéen duñ tuddanti <laughs> moo xam ne làmb dafa dafa baaxoo booloo yow mi yow mi leen di ñaanal war nga leen di tegal loo xam ne nii war nañuy booloo di ànd. Mhm. léegi nag mbër da ngay gis ku ci bëre benn combat ñaari komba ñetti komba say say xarit dar la. Mhm. ñi la daawul wax dëgg dar la. Mhm. ñi nga xam ne nii yaa leen gën a feeñ. bëgg a feeñ dar la. succès tax ñu ñëw topp la. voilà loolu ñooñu ñëpp nag buñ ñëwee. mbër fi muy ngemb sax da gis ku ñëw jox la benn xooxu sumpa ne la paa bi nee nga def ko sa ngemb ki mhm. buy tekki ngemb gis ñëw jox ma li ma paa bi joxoon fekk mhm. yooyu bëgg feeñ la du dara mhm. mais liw li li li li tax mbër daan ak li tax mbër daanu loolu euh, ci mbër mi lay nekk nekkul ci ñaankat bi lay ne wala ci coach bi lay ne mbër mi mooy war a partager boppam kenn ku ci nekk mu jox la cëram jox coach bi cëram sëriñ bi fi mu ko war a yemale mu yemale ko fa hmm. ki muy ànd ak fi mu ko war a yemale mu yemale ko fa mbër dina ñëw nga ne ko du ma la ñaanal parce que entraîné wala gisoo si moom yaakaar que ne na entraînement bu dee nga ne ko du la ñaanal non loolu sëriñ hmm. ak ku saxeween man li ma xam mooy hmm. ki am soxla ñëw ci man man loolu laa xam am naa droit nag seet salaam ba ñu lay daan mën a la baaxut dañ lay daan nga ne ma nan nga mën a def nangam nangam mën a la ah gisuma loolu dañ lay daan laa gis. Mhm. soo ma joxee sa xaalis damay lekk. Mhm. parce que man wax naa la. Mhm. dégg beneen bi ci topp mooy mbër. li mu li ñaan dafa gën dafa gannaawee ci mbër. genn la ci fas boo ko daggee teewul fas bi dem. kon mbër mën na dem saa ñaan. waaw mën na dem saa ñaan saa ñu ñaanal ko. ah loolu mbaa wóor na. ma c'est-à-dire waxuma pour ñi bañ koo ñaanal nii de saa mu takk laa wax. xam nga mën nga ñaanal nit sans mu takk. mu takk waaw parce que ñi ne ci. Euh, ginnaaw ay yow yaa ngi nii tey booy boo toogee di boo jullee pare di nga ñaanal way dawlu yi. waaw leen di ñaanal. waaw léegi li nga leen di ñaanal ko koo yóbbu. Mm-hmm. ki ngay ñaan moom fi mu nekk mi ngi fa loo ko laaj daf ko daf la koy jox te fi nga ko yónni daf ko fay dem daf fay dem. Mm-hmm. te sarax gaa yi dañ koy wax dama ciy dugg sax damay développé ci côté boobu dañuy wax nga dégg ñu ne sarax. sarax amut ci làmb làmb amut sarax. da ngay dégg ku ne la sarax bii moo gañ a làmb làmb njot moo ci am làmb lépp looy def te amoo ci yàlla tuddatul sarax parce que mhm. mbër moo ci joxoon 40 tonnes ceeb ne ko demal seet bookar mi am 40 million nga jox ko ko mhm. muy dem romb borom daaru muy yorul dara mhm. te borom daaru gën koo yelloo mbër mi ndamam lay xool du ko jox borom daaru yow la koy jox yow borom 40 million yi loola ndamam moo tax mu def ko booba léegi loolu njot la tudd léegi bu dee ci français la sacrifice la koy wax bëy wi nga rey ndax sa ndam. Mhm. bëy woowu tuddatul sarax sacrifice la. kon làmb dafa bëri yu ci làqu. Mhm. baatu wolof am ci. ñu mhm. jël baati wolof yi tuddee ko neneen. da gis da gis mbër sax dongali ñu jël sa teg ci ginnaaw ñu ne noo daf tojtal la def ci ginnaaw. fekk <laughs> mhm. loola ma ngi tudd toftal dafa mag ñi dañ daan defar ay gàllaaj yoo xam ne jigéeni biir du ko gis mhm. dañ daan jël lu gannaawee teg ci gannaaw pour mu nëbb sengoor bi pour jigéen bañ ko gis mhm. wala góor gu duggagul néegu góor wala yeneen ak yeneen ñu tuddee ko toftal ci morso bu weex comme ni gone ni jigéen di amee mbootu loolu moo tudd toftal mais tojtal mbër mi ngi koy def bi mu bëree ba pare yi ñu ko sànni woon ak yi mu sànni woon adversaire am mu dem sangu toj ko yenn yim suuloon mu loolu mooy tojtal loolu mooy tojtal dafa jot nag nit ñi xàmmee baatu wolof yooyu. Mhm. balaa gone ñi nga xam ne dañu topp ci ginnaaw di ñëw ñu mën ko ràññee. Mhm. loolu dafa am ci làmb. dëgg la waaw dëgg la. am na solo ma ñëw ci coach. coach yaakaar naa ne Modou Lo dafa ñëw andi facette bu bees andi phénomène système ñëw bëre ñaari combat décisif ñaari combat capital ne du takku galaaj loolu noo ko dundee pour une première ak Modou Lo ni ñu ko xàmmee woon takku ba fees ñëw ne du takk est au fond tey sa xel daloon na ci stratégie boobu ma bëggoon a adopté si ñaari combat yooyu. waaw loolu sëñ bi wax na ko. Mhm. xam nga ñaan du ci takk rek. Mhm. te am na lu ma bëgg a jiital ci loolu. Mhm. sëriñ amul. ci kaw sëriñ bi naan lu ma def day am. am na ci kaw sëriñ bi ne la damay ñaan. ndax yàlla mooy nangu. ñaar yooyu moo fi am. kantaan nag takku ak sangoog suul ak yëpp li ci am solo mooy ñaan. Mm-hmm. sëriñ daal euh, ñaan daal. Mm-hmm. mën nañ la ñaanal ñaan gi ñu la war a ñaanal te boo ñëwee làmb doo takk. c'est mm-hmm. ça. Euh, mbër bu ne nag. fi nga tàmbalee ba fi nga yegg étape bu ci nekk. moment bu ci nekk. ak li nga sentir. ñaari combat am yii mu mujjee bëre. li mu sentir la def. que ne doone kenn du ñaan. déjà bi muy dugg jigéen avant arbitre bi sifflé. naan ko pare nga mi ngi ñaan. mi doon ñaan yàlla sunu borom. lu mu ko doon ñaan ndam. donc ñaan am na. quant à takk nag peut-être toll na foo xam ne ni gis na ne am na ñaan ko gum gën a gëm. gën ko wóolu ci takk. Hmm. pourquoi pas nit ki duñ taxaw ñaan ñaan jàkkaarloo yàlla suñu borom ñaan ko. Hmm. diggante yàlla ak doomu aadama yàlla dafa dugal kenn. Hmm. ah ba mu koy sàkk kenn da ko fekke alors donc loolu méttiwul daal ah. waaw mais kon yow la fekk mu ñëw euh, euh, euh, bañ a takk yow dérangé la woon. man mystique dérangé ma man toujours bon sëriñ moom. dama ko mën sa respecté. Mhm. mbër muy dem di wut ñaan it dama ko mhm. respecté. Mhm. mais lépp na tënku ci damay ñaan. mais comme li ñu wax ni naan par exemple sëñ bi neen na sëñ bi nee na ne. déedéet man daan ñaan gi moom ñaanal. naan ñaanal. mais li nga xam yaakaar nañ ne daal am na njariñ ci combat bi. ñu sant la ko. defal. mais par rapport ak peut être xëy na ni ngeen ko miinee woon ak takkuwaay yi peut être dina doon lu bees yéen. mais àdduna day dox. ndega man maa dem ba léegi daanaka presque toogatuma ci seize bi. mais Mhm. mais am na ci mbër yoo xam ne nii mës naa toog benn instructeur mu daal ne ma sama combat ak diw dama doon fecc li butéel dematuma ci benn sëriñ mhm. butéel yi mu nga xam ne moom daan bi bu ñëwee day sotti day day fecc day sotti day mhm. lu ci nekk rek ak tolluwaay ak famille am buñ fàttali ko daana bëre ba pare sax sëgg di for gaalaajam yi dagg mais kon xam nga ne àdduna day dox mais boo demee ba sant ne lii actuellement ni moom laay sentir ci sama combat. Mhm. que su ma ko amee doy na. Mhm. baax na li am solo ba am solo rek mooy mbër muy entraînement woo muy côté mystique na nga waaj ba jekk lu def lu dal sa xel. bi mhm. dem jàkkaarloo sa adversaire na fa séenee wut. te xam ne nag yàlla mooy dogal. loolu rek moo fi nekk yi ci des yëpp daanaka day sonal mbër. mbër des fois dina sonn fekk boobu lu ñu dugal ci bopp bay bari. gis nga mbër. mbër bu demee ba war a bëri. boobu xel mi dafa war a dafa war a am concentration. ndeysaan dafa war a nekk koo xamante ji yebuñu ko lu bari. Mm. des fois mbër dañ koy daan ba pare indi ko ci làmb ji. ndeysaan ndax lañ koy dañuy dugg ci bopp baay bari. mu boole lépp taxaw ko ci taxaw ko ci géew bi. bu ko mm. abli sëqatalee rek dèjà mu commencé am xel ñaar. ndeysaan <laughs> waaw. Mm-hmm. ah boo nee mbër par exemple tey jii kii boo ko takkee mbër adversaire du la gis. moom mi ngi préparé fas yéene duma adversaire arbitre bi ne fur adversaire bi dox ci kawam. Mhm. foo ko xel ñaara koy daan. Mhm. ndax lañ ko waxoon gisu ko. xamoo looy fekki ñaanal waajal ba jekk na la sa entraîneur teg lim la war a teg sëriñ bi def lim war a def nga dem nag fas yéene jàkkaarloo te xam ne nag borom mbaar mi rek mooy dogal loo fa am yàllaa la ko may. Mhm. loolu bu amee da ngay noppalu. soo daanee. sant soo daanoo sant yàlla te xam ne yàlla moo lay may moo lay xaj loolu mooy làmb mais léegi li ñu xale yi dafa diis. dem nga ci làmb tey jox joxe say consigne sa poulain mu dem tey sëriñam mu leer na yow li mu def nii digaloo ko ko ay sëriñam a nga ko digal wala ay wala ñeneen ah wax dëgg yàlla man sama benn poulain yab ma yab gu toll ne ah. nga bëri ñu daan la man dinaa ne la juum ah. ma ay sama naa def nangam kooku ko benn sama benn poulain la ko wax tam dooma ko wax mhm. mhm. mais mhm. Euh, même euh, boo amee combat ñu yor sa cumukaay dama leen di encadrer comme ni ma lay encadrer lu ñu war a def dama leen bàyyi ñu def ko taxawu leen kenn du leen déranger. bu ñu defee li ñu war a def ba pare. Hmm. li ci des maa ci def échauffement beeg dugub géew beeg yëpp dem leen ngeen bu ñu paree ñoom dañuy def li seen wàll dem toog li ci des man maa koy def. waajal combat def seen. waaw yëpp yëpp def seen planning. yëpp waaw yaa ngi dégg mais. Uh-huh. ñëw naan ma waaw sëñ bi ma wax nangam déedéet. bu la ko sëñ bi waxee tam boo ko def bañ daal tamit doo ma ko wax. parce que ko ah mais attends sur le terrain toog jour ànd ak mbër mi di kërti kërti dawaka dugaka daano di kërti ba jour combat bi. Hmm. mu naan diw moom wax nangam. wala sama staff sous-marin ñoom ñoom ne ma ko adversaire bi ne adversaire bi ne. Hmm. déedéet parce que benn affaire dafa am. adversaire tant que ñi ngi lay wax ñetti mënin ci moom yoo xam ne nii mën na ko. Hmm. nga di ko moytu ci combat bi doo bëre. am naa sama benn poulain ndeysaan Milima maa ngi koy nuyu dafa am combat. Mhm. bëre adversaire boobu moo gën a diis adversaire moo ko ëpp doole. Mhm. mais adversaire moo ko ëpp rapidité dax ko xeex. Mhm. fat fat adversaire bi blessé ko yóbbu ko ardo ma fekk ko ci ma ne yaa ngi koy bàyyi muy déplacé di wala wër-wër dina la dina la escanté yóbbu la ci kawam xeex bu fayoo nga encaissé jàpp ko. bu xam naa ne bu ko jàppee combat bi jeex donc loolu rek mooy mooy mooy maanaam mooy marchal ci boo dee encaissé encaissé jàpp ko. Mhm. boo ko jàppee rek braqué ko paan ci kawam. loolu moo la ci génne parce que kii dafa gaaw. ngeen def seen plan de en plan di waajal nga ne ko heure telle ñëwal entraînement ñëwul ne la dama voyagé woon dama demoon wuti social affaire yu demee noonu loolu dal na la yaakaar waaw non loolu dinay am. mais aussi xam nga tamit doo doo doo doo jël lépp aussi. Mhm. il faut que am yoo xam ne day am. Mhm. mbër aussi boo ko koy comprendre. man mbër mu mag ak mbër mu ndaw yëpp ci am. Mhm. il suffit que may am formation yi ma war a am ci yow. waaw dinaa xam nu ma lay gérer. ok ndax mais xam nga lu bon. Mhm. entraîneur warul umpale mbërëm. Mhm. mais mu war ñëw entraînement tey ji par exemple benn sëriñam woo ko nag war nga ñëw def ay càngat wala yooyu. mais da koy comprendre. effectivement ci la bokk. am doo ko xañ dara. li nga xam tey jii dal na xelam. te mu war ko wuti ci côté mystique. non bul ko xañ dara. surveiller ñu yor cumukaay li mhm. ñu teel a wàññi butéel yi ba nga xam ne bu arbitre bu wootee mhm. butéel du ko fa tardeel parce que am mbër yu bari yoo xam dañuy bëri pare ñu dagg seen xaalis ak yu demee ni ko noonu mhm. ñu yor cumukaay li seen nga ne eh daa mujj règlement la du li ngeen bëgg mooy am li règlement bi santaane la ñuy def gaaw leen wàññi butéel yi ndànk ndànk ba nga xam ne nii yi war a dem ci géew bi donc jamono yooyu limité wuñu noonu bu da butéel yi li war dem ci bouteille ber leen ko ne mais balaa at bi dee sif la pour ñu dugg ci géew bi. Hmm. lépp loo xam ne fii la ko war a def na ko def ci saasi. te it bu ma commencé échauffement bi bouteille yi dootul bari. bouteille yooyu est-ce que di dem ba nekk handicap tey mois de décembre janvier affaire bi sedd mbër bi ngeen di def ay ay échauffement e-, exercice étirement affaire yu demee noonu tey ñu sotti ko bouteille yoo xamante ni tey day dem ba day téye siditi dootul am tey réflexe bi war tey vivacité bi day wàññeeku tey ak aussi ñu takk koo takk takk ba fraîcheur bi war si moom sax du ko am loolu aussi daf leen di dal. waaw man takk bay sama problème. mais bu nekk à l'aise day xat. takk mooy sama problème mais pas butéel si nga butéel yi. Hmm. lu ñu ko sotti ci butéel boo ko échauffé mu dañ. ak sedda bi. non mais booy dañuy ne dañuy nekk ci géej di entraîné di xëppoo ndox. des fois nii. Hmm. da nekk da nekk ci euh, terrain ñu indi fa ay sachet ndox sachet ndox yëpp yi képp duñ ko duñ ko sangoo duñ ko duñ ko naan dañ koy sangoo di entraîné par sangoo ndox loolu moom seen yaram tàmm na ko kon lu ñu sotti ko mën échauffement mën na mën na la ci dimbali mhm. mais takk daal moom mooy mhm. doon problème yi quoi des fois takk yi nga xool sax daal di ëpp na waaw ñoom ah, ñaata sengoon ngay defaral mbër mbër buy bëri <laughs>